kan lay jaale Thione Seck. jaaga. mais kon jaaga war na jaale ji Mapenda Seck parce que moog Thione bokk ndey ak baay. déedéet bu nit génnee àdduna bu fekkee papa Thione dafa génn àdduna dafa war a dem comme nit moromam yi demee jaale ji. Mhm. mais jaalewul xoolal xewu xewu xewu Aliou Seck ñëwuñu. fi mhm. Assane Ndiaye moo fi nekk mooy papa ci waari. mo taxawa wali mo bëgg njabotu ah jaaga ak papa con waaw ya ngi may dégg mhm, waaw kay li ngay wax ni wali mo la yoni nga wax ko wala yónneewu ma ma wax ko dama ko xam maîtriser ko li yag na ko wax man kat duma yoni duma ko ni yoni Cheikh Ahmed man amul mbindeef bu meuna taxaw ne ma dama lay yoni pour ngay wax amul gis nga ne famille jambour war nga ci meuna a comme ni ci xuusee ni sama yónnewul ci famille jambour dama ne la lepp luy ñew man pour dal ci wali parena pour ang loolu taxaw Ousmane Seck boo amoon cëru kilifa du tok ci ay télé di taralali nan ay wali, waw man duma top ci ginnaaw wali ah may nan may nan ay sa rasul yegaluma ko defuma ko nangam nangam parce que est ce que question bi moy est ce que yow Ousmane sek amoon nga taxaway bu rafet ci fam bi ban cer nga am ak ban geud ndax yegon nga fami bi bu baax ban wan la meuna wax seeni affaire nan arrêté wali dafa ñak papam bu yagul ñak yaayam bu yagul nañ ko may jamm ñu may ko ndox mu sedd soxor iñaan ah degal ousmane sek ku bon la ku soxor la mais mais wonul ci bala go sek dara fi la yam man xamna la ci fami bi cheikh ahmed bu ma waxee damaa a wax ken duma wo nak ne ma ni nga waxe baxul parce que man xamna li may wax dama xam fami bi xam ñep barke serigne babakar si ma ma la waaw ndax foog nga ne sagal nga Wally toog ci internet xas baayam ah ndax yow jàpp nga ne sagal nga Wally Seck la fet nga toog ci internet xas baayu Wally Ousmane ou baayam la ba fenn baayam mais du baay bu baax non Ousmane Seck ku bon la ku soxat la même ma laaj suma question suma question laaj ndax jàpp nga ne yow en tànk que rakk ci Wally en tant que hmm. soppeem hmm. gëm nga ne seen normal nga toog ci internet xas ñaari baayam gëm nga ne c'est normal waa kay loolu waale la engage moom nu mu koy gisee mais man ni ma ko gisee ak ni ma ko jàppee gis naa dëgg yu ma war a wax wax naa ko bu ma ci waale meree baax na bu ma ci jàppee c'est mais man maa gis ay dëgg yu ma war a wax ma wax ko xooluma ci waale laaju ma ko afem soxluwu ma ko damay wax rek. ok beneen bi uh-huh. waali ni mu mel ak muumi. Uh-huh. ku ko xam-xam ko muumi feebar nekk situation. julli ñëpp ko ñaanal yow nga taal sa live uh-huh. la nga wax munuma ci jaar nga tuddu la ko dal fam ko dalé nam ko dalé ci ci magu wali, ci situation bi nga xamné uh-huh. bayam gañu na you know mu nekk ci naxar nga tok ci uh-huh. internet yow yow ñëpp ñëpp yow la ñuy sétal fi mom ya bëkk deug dëgg la man mi yaay suma boss waaw li nga wara tim soxna momi tuddu la ko jot ak nam ko joté gisone blessé nga waali ci xol waaw mais dama ne loolu erreur la erreur de communication ñëpp lay dal man maa génn ma wax mënoon naa yem ni salaamaaleykum gars yi soxna moom yi génn na àdduna sur nangam nañ koy denc nee la génnee àdduna ba ñu tudd ay feebar. loolu man maa ko def sama erreur bu bopp la toog naa jéggalu jéggalu naa waali te waali amul lu ma jàppal tey sama digganteeg moom tey la gën a neex tey laa gën a kontaan ci moom mu gën a bëgg ci man. mais man erreur day am kuy ci communication. ñu bari den ne biñ déggé nga wax fébari mumu bi dañoo fébar ñoom dañoo joy ba son gisone ne mama laccé gisone bi nga jéggaloo walé xamné joom nga mënon nga taxaw jéggalu jigéen ñi jéggalu askanu sénégal parce que li nga tuddoon dafa sensible dopo ne Bali amo kano man awma benn jigéen bu may jéggalu hmm awma benn jigéen bu may waxal okay jigéen guñ fi def loo fi war def yaa ko def man awma ku may jéggalu ndax tooñu kenn xam nga kan moo tooñ boppam ki toog ci néegam filmer ay taatam. non egguma foofu de question bi mooy. non non question bi mooy. la le soxna moom yi di jigéen. waaw nga tudd ay cëram yi ñu dagg. waaw maanaam ñaaw boobu ñaaw ci cëru jigéen. waaw yow xam nga ne danga juum nangu nga ne da nga juum. jéggalu nga waali. te waali jéggalu la ndax xol bi moom lu mu ko digal mu def. noonu yow gisoo ne danga nga waroon a jéggalu jigéenu Sénégal en tant que jigéen cër yi nga tudd ne den ko dagg gisoo loolu. aw ma benn jigéen bu may jéggalu. ñi ma toj laa jéggalu ak ñi ma seqal pare naa ci. question bi leer na. léegi. Uh-huh. gisuloo ne. Uh-huh. sa taxawin ci waali. waaw. ak ni nga ko bëggee ak ni mu la sagalee ci wéyam. waaw ni ni maanaam euh, schedule wali, programme am ni mu xate mhm. nga takk jabar woowagut la rek nga mere ko ba saboote dem màkk gam dem màkk ak bañ ko doon filmi loolu tam ci njuumte yi la wala yaa tey waaw loolu tamit la parce que man maay mer di mere ay nit di wax sama xol tàng may wax ba tuddaale ko ci moom mënoon naa communiquer bañ koo tudd mënoon naa ko cee bañ a boole parallèle bi mënon ko ci génné ak bañ gatétuñu lolu suma erreur de communication la fofu tamit ma fa joom ma dem ba allemagne fekk ko mu tok mëne ko président jox ma loxo mu jox ma loxo mëne ko téel ngeubal bëssal ma ngi lay jéggalu ndax ma la togn parce que waxna lo xamné ni waruma ko wona wax té wali man sama kilifa la mhm. yenn kaddu yi wurtu jog di jëm ci mom dama wara taxaw comme nit ma xamé won ku laal ma daxaan ndayam ku tuddu ma ñaf ndayam ku laal ma téegal ndeyam lii mooy sama rôle ci waali mais waruma di wax ay kàddu yu ñaaw wala nit di ma ko xamee muy jëm ci waali bu boobaa sax damay dis favorabare yi mën na ñoo seen xel mën na ñaaw parce que ñu bari bu amee fit défendre waali balaa ko sekk ci mën nañ ko gisee kon man fa ma nekkoon dama faa war a nekkaat mais waruma ay ñun dinu ree ndax ñu doon ay concurrence yu bëri moo tax ma jox ko loxo jéggalu beneen bi tamit ci Amady Badiane ni meloon ak waali ak position bi nga ci taxee bu problème amee loolu tam yaa tey wala erreur la. dëgg la mooy li ma jotee woon ak ëmb di. waaw loolu yaa tey. loolu non lu ma def la maa loolu lu ma def la erreur bi ma def mooy audio yu ma génnee. Adamo erreur yaa ngi bëri de. waaw waaw bi ma def mooy dama wax ak ëmb di. jël ay mhm. audio yu génnee ko te wuruma woon a def loolu. ndeysaan ak ëmb di moom la bëggee woon ak fi mu la fekk. ëmb di daf ma jiwul loolu moo tax. Mhm. dalaa bëggoon de yàgg na laa faral de. waaw ma ñëw rek bu ma bëggee waale nekk ak waale yàlla ak a tax su ma amee accès ci waale Amady njëkk a defal vidéo yónnee ma ko ci waale balaa ko sekk. Mhm. ne ma gannaaw xàjjal mu ne ma booy bi dina la wayal lu neex parce que gis na ni ngay taxaw ak ni nga koy liggéey. Amady moo la defal nii saa yu ñëwee Europe Amady ba jàpp ñooy toog matin ak soir Amady ñooy ànd ci national yi Amady ñooy ànd dem ci négoce yi Amady ñooy ànd mais erreur bu amee erreur am na barki démb rek ñu ngi wax téléphone mangi nan ko mang koy koy wat sax ci téléphone bi parce que lolu mom moma war ëmb di sama grand frère la ëmb di loolu mënoon jotté ci aduna bi sax man woron na génn wax sama ma audio sama ma def dara. lolu man problème problème bi mooy problème bi mooy ëmb di daf la yag faral biir Ramadan. deug la yag la taxaw ba waale wëy ni nga ni nga uññee suturam deug na dafa metti won jaga bat bamuy muy bamuy ba muy waaj a génn sax loolu. daf ko doon non non woo dan ma wo Waly jaaga eh, dafa yónnee pour ñu wooma. ndeysaan. waaw. mais mais tey nan ngay nan ngay comprendre ne Waly Seck. waaw sa yi ci moom nga tey léegi nii xas nga ñaari papa nga ne yaa tey. bii du erreur waaw magam. di xaritam gaañu nga tudd cëram yiñ dagg ak yëpp mu ñaaw boobu erreur la. loolu erreur communication la. ñaareel ba mu dem màkkat di aji xelam dem ci yaayam bay jooy nga sabote loolu. saboté ko boobu tam erreur la. erreur la biir Ramadaan 30 ans de carrière Thione Seck yi ñu ànd ak moom nga génne audio yi xam nga def yu bari loolu tam erreur la. erreur la. nga loolu naqari yaayam mu si lalu feebar mu dem ba woola méttit ko loolu tam erreur la. waaw donc Wally nan la lay xool erreur yu bari yi. erreur yu bari ci ci liggéeyam ci lépp nu mu lay xoolee. Wally Seck wàllu yu la. Wally du gis nit. Wally xol bi Seydina déggoo Wally Ibrahima. loo mën a def ci àdduna bi soo ko jéggaloo dina la jéggal xol bu rafet la bo doon waali bu doon hmm. waali dégg bu doon waali <laughs> noon la mel wuy ma kon waali bu doon noonu nga mel comme ni nga koy xalaate yow kon du liggéey ak ñu bëri ñu bëri waali du liggéey ak ñoom gëmoo ne waali Seck waaw artiste bi dina maslaak ñëpp pour intérêt artiste waaye waali en tant que personne am na fu ko nit di toll dootul la ñeme ba am na tukki gëmoo loolu melul ok kon Waly Waly lu ko xelam mi digal rek mu def. non non Waly melul noonu Waly amul kuy toog naan ko del defal nii doxaleeg nit nii nangam nangam barki Serigne Babacar si Waly melul noonu man kay waxtaan bi du neex ba nga dëkkal Waly foo ne man maa la Waly maa ko gën a xam di ko fréquenté xam ko bu baax. non man dëkkaluma ko damay laajte rek. melul noonu. melul noonu man man tey dama taxawee laajte xam nga man xaw ma. waaw man damay laajte man aw ma duraat dëkkal Waly fu bon nii fu baax. Waly melul noonu. mais dama ne Waly ñaari personnage la. waaw waali baayu ndee la waaw ak waali chanteur artiste bi waaw artiste bi luy doxal promotion da ciy nekk dagg na mais gisoo ne waali nit ki nga xam ne he is very family oriented mm-hmm. ku def magam la nga ko def mm-hmm. méttital yaayam na nga ko méttitalee tas bi na nga ko tasee mu dem màkk nga saboote ko waali boobu dina am réserve envers Adamo du parce que yow sa wax léegi la moo tax nga may ko nga jox ko 500000. ci mu ne la lii neex waaye rek la ma wax la yow wax yi ngay wax damay laajte rek amul may ma waxu saytaan ngay wax ak jaxase nit. ay maa ngi jégalu damay laajte rek damay non may ma daaneel sama digganteeg Waly man ak Waly ba àjjana fo man ak Waly moom nit mënuñoo jaxase. dëgg la kooku man leer na ma man xam naa loolu. dëgg la kenn mënuñoo jaxase. beneen bi tegu mooy soo dee wax comme si di tudd yaayam yaa ngi koy répété sànq ba tey di waxaat di insister ci moom yi parce que laaj ma ko trois fois di ci insister day mel ne da ngay jaxase nit ki da ngay jël aadama di ko jaxaseeg waale. non même pas dama ko déglu ma rek non mayu ma ñëw mayu ma ñëw rek yow. da ngay wax ci communication ne da nga ay man may jëli communication man du ma Kaliphone bokkuma Kaliphone mi ngay piéger di ko insister ci benn affaire laaj nga ma foofu ma ne la samay erreur la jéggalu naa ñi may jéggalu jeex na mais bu ci topp di insister ci yaayam bi nga xam ne nii bi ngi tëdd yow mal xiyaam ñu war koo ñaanal yàlla mu mu saral ay yaxam teewee ji àjjana magam ji ba mu wëjee yàlla tamit yàggul ñu ñaanal ko mu seral ay yaxam nga topp ci bii mooy troisième fois nga ciy insister bugguma ma doon quatrième fois nag la ma war a wax wax naa ko ci jeex na nan jàll ci beneen point waaw. Ah, loolu du yow yow am nga droit. su ma la laajee. waaw bu la neexee nga ne ma tontu woo ma. mais maay seet fi ma neex ma laaj ko. waaw li ma neex ma laajte ak fu ma neex ma avancé yow nag am nga droit bu la neexee nga ne ma tontu parce que laaj ak tontu rek la ñu sekk méttiwul hmm. am nga duraa bañ a tontu am nga droit tontu hmm. mais gisoo ne loolu tax na ba bi nga bi Wally amee anniversaire nga yónnee cinq cent mille. Hmm. mu yëkëti ko ba aduna yëpp dajé mu ne la li neex na way rek le rek lolu communication wali bob lo ci déggé dara jamm rek sama grand frère la warna ma wax warna ma yedd comme ni may ñeneen di yeggé suma waxé rek leen dama koy jëlé comme frère dama wara réglé parce que man tamit lima fi def bari na te yemuma wax na deug lu mo wara wax rek la wax wu mako ci defu mako ci dara man wali chaque jour damay contanté mom damay bëkk mom lu ma wax baax na lu ma wax neex na parce que man maa bëgg waali waali maanam man kenn la ci man lépp loo xam ne nii may woo bu ma woo gaynde Macky bu ma woo bu ma woo maa ngi live gaynde ki bu dee yàgg may dégg bu ma woo waaw aad waali lépp loo xam ne wax na ko aadamu da ko ko war a wax man rakkam laa lépp loo xam ne aadamu wax na ko mu jëm ci waali bu jéggalu di am man aadamu may génn jéggalu waali ndax sama kilifa la point jeex na fii amul dara lu ñu fiy jaxase ak lu ñu fiy wax lii mooy wax ji. beneen bi yow soo amee xarit. mu joteeg nit. dangay ngay def hmm. di attaqué kam joteel wala yow doo wax ci koo xamul. ku laal Wally sekk ci senegal mu ubbi sa lëfal ndey. ak koo mën a doon damay préciser ci Wally hmm. li may laajte mooy yow Adamo. Hmm. yàlla boolee ak nit. nga xaritook moom. nit kooku su jotee keneen. waxuma keneen wax ci moom de loolu du laajte bi nit ki jotee ak keneen yow da nga ciy ñëw saaga kam joteel xas kam joteel taf ko wala da ngay ah, ah. màndu déglu ba xam damay maanu déglu ba xam boo fekkente ne bu fekkente ne mm-hmm. mm-hmm. samay nit lañu mm-hmm. nga jekki-jekk man samay nit yi ma am yépp kenn du leen tooñ ñoom ñooy tooñ kenn du leen kenn tooñ kenn nit ñi leen di tooñ waali dañ koy tooñ. nga ne sa nit ñi ñooy tooñ wala nga juum. non non dañ leen di tooñ. ah da nga juum waali dañ koy tooñ. Hmm. Viviane dañ koy tooñ. samay xarit yu bëri dañ leen di tooñ. ñooñu ñëpp nag ku leen ci laal. damay génn daal Doro Gueye. yow waaw ñoom ñëpp samay xarit la. yow mii dugg nga ci Viviane. Hmm. dugg ci doolo Gueye. yow mii sa yónneewul ci ay ka chaque jour nga toog fii yàq deru fi fi yàndul yàq deru fi yaa ngi mode défense de wala mode tontu laajte nga fi ñëwee loolu mode tontu laajte mais yow tamit faaw ñu lay xasaale ndax yow ci li ngay wax nii maanaam question yi dañ ceeb lu bëri mais may naa la loolu may naa la mode défense nga mën a échauffé wu parce que peut-être laajte nga bëri xam nga laajte dafa teeng dafa xeer parce que lii histoire dina ko bind demal mën nga naan léegi uh-huh. wala da ngeen jëflante mu tooñ jëf dama ne ko di dem Amérique yaa ngi dégg jëf jof jof jof yàggul Amérique Malick Ndara ko jiitu Amérique. Adamo question bi du yàgg na wala yàggul question bi mooy yow Adamo lan la la jëf jël def ba nga wax ko li ko wax li mooy question. defuma dara samay nit la te boo laalee sama sa ndey. wax naa ko. benn mi nekk New York. xamuloo ko musuloo ko gis nga taf ko wax ko ketame daf la def gis xamoo ko xaw ma ndooy de ok yëpp ku jotee ak Malick Naar rek da koy taf saaga ko non ku ma ku ma jot Malick Naar ku dugg tey 18 muy sama xarit xam moom sama xarit la mhm. sama waay la mhm. képp si koo xam si nii tooñ na ko mhm. di ko suruxal wala di ko déema daaneel wala di moom ak Amina Poté dinaa génn tegal sa ndey. ok donc ni xadiloo ndaam bëggee waali ngeen bokk waali ba mu jotee ak Malick Naar Malick tuumaal ko sa yoon nekku ci da ngaa ñëw rek wax ko la neex xadiloo. parce que xam ne xadi naam def. ma ah. mhm. da dafa am lu mu defoon tam lu mu jotee wala. non non man Titi de jotee maa moom dara Titi maa koy classe rek di ko tooñ. xam moom sama sama sama la. sunu yaay la sunu sunu xarit la sunu kii la. Mhm. maa koy tooñ rek jotewul dara maay tey bu ma neexee ma xas ko bu teyee ma jël soom challenge ko bu teyee ma sànni ko xeer amul lu nu jotee comprendre nga. Mhm. man maa koy tooñ rek waaw. léegi yow même question yi tamit moom laa la doon posé rek Mia Guissé da laa def dara. non su la neexee. Hmm. mën nga ma invité man. waaw. nga teg ma nii mala la waaw dama laaj. man may tontu mais su fekkee laaj yi dafa métti ba nga bëgg def def dàggasante nga ne ma ne. du def man dara du ma man dara safuma sama àdduna répond bu ñëw. xam hmm. naa dama koy tontoo. non dama gis xam li ngay naan bari rek dama gis li ngay naan di bari ma foog ne. non non man dama bëgg si. si mango la man dama ko gis si mango la ni ngay naanee nii ñi la yàgg a seetaan live gisuñ la ngay live nii de naan bi dafa bari. Hmm. man xamuma de man diis rek bul laa daan teg ñi ma yàgg a aadama du ma naan sax man energy drink lay jël bu ma bëggee live tàkk. ok lii mango la dama ciy solosé. ñi xam aadama xam na ne energy drink lay laaj Red Bull yi lay teg. ok léegi. Hmm. li ma neex ci yow. Hmm. mooy intelligence bi nekk ci yow parce que damay gis nga toog rek. iri gaa Instagram wala Telegram bu gaa yi ñëwee ba mat vingt mille nga jaay boobu créé beneen lien gaa yi ñëw nga jaayaat boobu intelligence boobu hmm. ban message ngay lancer ndaw ñi intelligence bi nekk ci yow ba tey peuple bi lay topp da ngay am benn xibaar kaay leen kaay leen abonné leen fi bañ ñëw mu mat dix mille vingt mille nga jaay toogaat. lan ngay digal ndaw ñi lay seetaan pour ñu mën koo def léegi bala maa lancé boobu dama lay laaj ban compte nga gis Adamo dajale ko bam am nit ñu bëri mu jaay ko ak kan laa ko jaay ak kan maa la ko jaay nga génne ma preuve yi montré ma ko ma la loolu bu amul dañuy jàng non mun nga wax ne déedéet loolu li ma lay laaj ñii bu fekkee amul damay tëb question bi waaw maa ngi ñëw kay ñun ci askan wi la ñu bokk te man dama laa bëgg man yow lay toog fii yaa fi ne yow la fi yàlla teg waaw woote telegram ma dem abone Mm-hmm. su ma abonné ma toog rek gis tur ba changé te dootoo publier waat keneen mooy mm-hmm. publier leneen lay publier. benn yoon laa fi jël compte. Mm-hmm. dugal ko Telegram ne man maa ko moom. jël Telegram bi joxe ko waaye jaayuma ko man amul compte bu may jaay. plateforme yi ma yónnee yëpp dan leen di tëj mais man du jaay compte ñi may seetaan xam nan ma capot Europe man moo sama capot Europe bu nekkoon fii Adama Moussa le juge heure bi 10 millions abonné lay am du ma am 3 ñi nekk ci si yëpp du ma doon seen morom li ma leen rawee woon sax dafa bëri ñoom ñëpp nag laa wax ñi may seetaan xam nan ma. yow yaa ko xamul man xam naa la yow laay topp yaa fi ne. yow yaa fi ne yi ma amoon xamoo lu dañ leen a tëj li ma amoon ci ay compte dafa bëri ñu tëj leen ñoom xam nañ ne dañ leen a tëj ñoom xam nañ ko yow ok lan moo waral aada malien malien malien da nga mbokk Mali wala da nga fa daan dem lan moo waral malien. loolu da ngay laaj ñu koy wax. man moom doo ko laaj ndax man sénégalais la je suis sénégalais passeport sénégalais laa yore Sénégal laa juddoo fa laa màggee fii laa yoroo juddoo Sénégal màggee foofu waaw. loolu da ngay laaj da ngay laaj ñiy wax malien ñooñu ngay dem nga laaj ne leen lan mooy aada malien mais man doo ma ko laaj parce que man sénégalais laa. ok su ma beneen question mooy. Uh-huh. lan nga sentir. bi nga uh-huh. duggee xam ne. Mm-hmm. oustaz Modou Fall borom xam-xam bi moo ko war a firi nga war ko lu neex keroog nag tag ga fa keroog moom keroog moom yàlla rek a ñëwul ci jàng yi ba nga ko xoolee mu xool la nuyu la lan nga santé Modou Fall du tey rek lañ gisante. yàgg nañu waxal oustaz Modou Fall tamit. waaw nit ku baax la sama mbokk la. Mhm. oustaz bu génnee daal sama kaw ci TFM. damay génn daal sama kawam ci internet bi ci TikTok bi mais saa yu nu gisantee ñu delloowaat fa nekkoon noonu la demee ñun amuñu ñuy def bay passé jote woon nañ fi dajee Paris ci ay jàng nii la rek ñoo bokk Europe yàgg nañu nit ku baax la Modou Fall mm-hmm.